dal leen nag jàmm mbokk internet yi xibaaru jéye ga xewoon ca Thiès xale ba góor ba mujj naa nangu ne moom moo taal baay ba ba mu tàkk jëppet góor gi di wuyoo ci turu Cheikh Diop moom la ab doomam bu góor am ci lu tollook ñaar fukk ak ñaar ci ay at di wuyoo ci Fallou Diop sotti essence ta di koy taal mu tàkk jëppet ba mu mujj caa ñàkk bakkanam jéye ji ma nga xewee ca Thiès gën ngaa ca nooto guy jama ca benn village bu ñuy wooyee kër yi moom doom ju góor jële di Fallou Diop mi nga xamante ne nii way takk der ya wala sax way l'enquêteur ya laata ñuy tàmbali seen enquête moom la ñu jox ñoon baaraamu tuuma mujj naa wax na mbir ma demee nangu na ne moom de moom moo taal baayam waaye lu doy waar waay Fallou Diop di nettali ci ay kàddoom di nettali mbir mi na mu demee di xamle ne man maa jël ab bool duy ko essence ba mu fees dal di kos teg ca mu takk jëppet ma yenu bool bi dox ak moom dem fekk ko fa mu toog mu ngi toogoon di seetaan télé ma daal koy yóot bool ba lii la Fallou Diop xamal enquêteur ya waaye ana lan moo waral jëf ju ñaaw ji Fallou Diop ba tey di xamle ci ay kàddoom lan moo waral mu jëf-jëf ji bi ñu ko laajee lu ko waral nag dafa ne dafa doon dóor sama naan dafay tëdd ak yeneen i góor ba tax moom mu taxawoon ne dafay takk ab ñaareel wax yu ñaaw yooyu mu yëkkati teg ko ci sama derub yaay yi moo ma naqari mënatuma koo dékku mënatuma ko muñ ba tax mu daal di koy taal mënu ma woon nangu mu yëkkati kàddu yu ni mel di ko teg ci sama derub yaay bi nga xamante ne nii sëykat bu nangoo muñ la lii daal doy na waar bu doonee ku xat sa yaay nga taal sa baay dëgg naa ne dëgg-dëgg baay yi tàkk nar naa bëri jërë